avocat ñoom euh, euh, garde corps am. Mhm. Euh, ñenn ci ñi nga xamante ñoom ñooy gérer sécurité am. voilà dafa mel ni moom lañ may signalé. mooy waa mais Moustapha Girassi tamit ñu ngi may xamal ni agsi na ci biir. Mhm. kooku ko Babacar Kebe su ma naataango nga xam ne suba ba léegi moo fi nekk. Mhm. moom moo ma nekkal ci biir ngir yooyu xibaar càmm bàyyi la nga yegg. <laughs> voilà di wax ni saal carte salle bi moom fees na ba tax na mun nañu wax sax service d'ordre bi boo ñëwee xool amuloo place dañ lay génnee parce que boo waxee ñu ne en raison de sécurité mënu fee dugg maanaam te te te te te vérifié li nga yor si sa saak moo xam nga yor saak wala loo mun a yor dinañ ko xool kon mun nañu wax si côté côté moom mun nañu wax ni ñoom jël nañ seen matuwaay leneen liñ ciy dolli rek moom moo di salle bi bari na ay va et vient ndax léeg-léeg procès yi da ngay gis ñii génn ñii dugg bu dul loolu daal yaakaar naa euh, procès bi mi ngi dox ni mu war a doxee sama sëriñ. waaw man euh, xëynaa ma laaj la ndax euh, seen marche bi nga xam ne moom moo moom la ñu programmé le 29. Mhm. yow en tant yaakaar nga ni war nañ ko mën a permettre waa nguur gi ñu def. waa xam nga bu fekkee moo nar indi jàmm war nañ leen bàyyi ñu def ko su fekkee moo nar indi jàmm war nañ leen bàyyi ñu def ko. su fekkee nag euh, jàpp nañ ne suñ ko defee day indi ay moom moom nañ leen nañ leen aaye ñu ñu def li nga xamante ni euh, moom la ñu war a def mais man dama jàpp ni mooy man dama jàpp ni en tant que taskatu xabaar man dama jàpp ni ñoom dañ leen war a ñu dem def li ñu war a def ñu encadrer leen ñu def li ñuy def après ñu delluwaat. parce que li tax ma wax loolu mooy boo xoolee euh, boo jugee bu fekkee ku mel ni man nga xam Pikine la jóge mm-hmm. bi muy déparé pikin ba ni muy egsi foo rond point boo force de l'ordre yaa nga fa léegi li ñu génnee ci force de l'ordre yi man est-ce que encadré wuñu leen woon ñu def seen manifestation après mu jeex ku ne ñibbi parce que période bii nga gis nii période bu doy waar la ñu nekk ndax période la boo xamante ni tey mun naa wax ni ah dañoo jub euh, mois de quinze jours ñu dem Tabaski gis nañ ni ñu baree baree bari bari ci li ñuy li ñuy taaba taaba ci la ñuy yóbbu seen kër kon ñooñu bu ñu leen empêché pour ñu mën a am dara yóbbu ko seen kër man yaakaar naa ni jafe-jafe rek lay daal di jur. ñu ngi lay jaajëfal bu baax Thiam c'est pour euh, juste wax leen ni euh, Ousmane Sonko xam naa fii ba ay minutes dina génn ndax gis nañu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaaraange ñoom génn nañu commencé xam naa dañuy jéem a xool ban. donc ki ñu ki ñuy ki ñuy gis garde corps am la mhm. moo jiitu ci biti Euh, ñu ngi yëgal ni euh, mi ngi waaj a génn mais gisaguñ ko waaye nu xaarandi rek euh, ba xam réellement li nga xamante ni moom mooy situation gi nar am Ousmane bu quitté fii fan la war a dem ndax ñoom dinañ dellu soit fii ci kanam parce que li ñu jàpp fi mu ne nii mooy que ni maanaam procès bi du du du dina xaw a jël temps. parce que tamit une quatre-vingtaine de personnes ñu war leen a entendre ñoom ñëpp du doon loo xamante ni dafa yomb kon maanaam. ma bàyyi làkk antenne bi en attendant ma jeg Abdoulaye Seck ngir ma xool leneen lu ma mën a yokk ci ñuy teewlu ci wàllu xibaar yi Abdoulaye Seck mi féete ci caméra bi lu xew. voilà donc wala Sonko Sonko mooy génn noonu. Sonko mooy génn noonu donc yéen a ngi dégg nit ñi di scander di yuuxu turam euh, jibee ngi noonu mi nga xamante ni moom moo géré wàllu protocole am gaa yaa ngi jéem a xool naka la ñuy amee réaction Abdoulaye Seck. xam naa du yomb pour ñu mën a am li nga xamante ni moom mooy président Ousmane Sonko mais nit ñi jéem a xool ka la ñuy fexe ba am ay réaction mbooloo maa ngi noonu di génn di yuuxu turam biir tribunal ba donc yëf yi ànd ak coow yëf ànd ak lool donc Ousmane Sonko ngi noonu euh, gaa yaa ngi noonu di ko téye euh, ngi noonu di ko ñu jéem a xool qu'est-ce qui va se passer voilà yéen ngeen mbooloo mu tàkk noonu am par rapport ak li nga xamante ni moom mooy situation bi. voilà ñu ngi jéem a ñu ngi jéem a delluwaat euh, ak takk der yi nga xamante ni xëy na xaw ñu ñu facilité mbir mi. bu ñu tënk mooy loolu noonu waaye Ousmane Sonko ngi noonu habillé en costume ànd ak tout son protocole ak ñi nga xamante ni ñoom la àndal waxtu wi ni wax ak yéen daal pour le moment nii Sonko euh, waaw mi ngi noonu oto bi yegsi na oto bi yegsi na. devant le tribunal le palais de justice de Dakar Ousmane Sonko leader Pastef ñëwoon soutenir li nga xamante ni moom mooy ay euh, naataangoom waaye mi ngi noonu ak ak garde corps ak protocole am mi ngi noonu di yéeg ci otom pour mën a dem euh, Ousmane Sonko ngi noonu mbooloo mu tàkku ñoom ñoo riiri génn tribunal bi gunge ko di yuuxu turam naan ko prési prési donc Ousmane Sonko ngi dem destination fan la xamaguñu ko réaction bëggoon nañ ko woon am mais malheureusement amuñu ko donc ñu ngi noonu di leen bàyyi en image Abdoulaye Seck. déplacement bi nga xamante ni defoon na ko ce matin ngir ñëw soutenir ay naataangoom ci procès gi fi am ndax procès baa ngi wéy waaye gis nañ sànq xalifa euh, Sall génn na dem gis nañ ay dëmboo génn dem informé nañ ñu Moustapha Mbamba Guirassy dikk na moom itamit apporté soutien waaye waxtu wi nii wax ak yéen yéen ngi koy gis noonu animage image Ousmane Sonko mi ngi noonu di dellu ànd ak. Euh, tous sont au protocole fan la jëm nag xamuñu ko bëggoon nañu woon am réaction mais amuñu ko donc mbokk yi mën nañu xaarandi eh, fii ci kanam ngir jéem a xam li nga xamante ni eh, dinañ ko am pour le moment. voilà kon mbokk yi euh, dañuy wéyale li nga xamante ni mooy réaction yi voilà mel ni mbooloo gi fan nag ñu ngi leen di tasaare. Euh, Madina Dieng one million marché bokk ci waa mouvement le peuple euh, bokk one million marché bokk ci coalition li nga xamante ni mooy yeewi askan wi euh, nga teewoon tey jii nii ci procès seen naataango yooyu nga xamante ni teg nañ leen loxo waaye mel na ni yaa président yaa Ousmane Sonko mu ngi jiite Pastef te bokk ci seen coalition bi yéen a ànd génnoon noonu noo jàngatee bés bi ak njàngat gi nga am ci mbir mi Madina. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu tout le monde Madina Dieng euh, bu One Million March mouvement le peuple bokk ci yeewu askan bi quoi en fait euh, jàngat bi ma ci def mooy dama bëgg wax euh, ñetti ñetti affaire rek laa ok ñetti affaire ñetti affaire rek laa bugg wax mooy que dama oui. yeggali yeggali yeggali li ma bëgg a wax mooy que ñetti affaire laa bëgg a wax da ngay dégg ñu naan Sénégal ci république lañ nekk ci démocratie lañ nekk xam pays islamique premièrement république bi ñuy nekk buñ ko waxee ça n'existe pas ci fait yi bi ñuy wax existé wul Sénégal pays de droit bi ñuy wax amul Sénégal waaye aussi euh, pays de musulman bi ñuy wax la plupart nit ñi euh, gëm nañu yàlla mais la plupart si suñuy actes lu ci bëri bëri jëfewuñu euh, wanewuñ ci gëm yàlla quoi ndax boo xoolee tey euh, dangay gis benn débat moo fi am ak werante bu metti boo xam ne suñu waxee ñu naan ay entre entre entre opposition ak ak état te sénégalais yi xam li xew li xew depuis 2012 ba léegi dafa leer ci bopp nit yëpp kii tooñ xam nañ ko quoi ndax boo xoolee tey bu fekkoon dafa nekk loo xam ne tey xamuñu ko euh, ñu ne euh, leerul mais boo xoolee depuis 2012 premièrement ci Karim Wade sénégalais yi gis nañ mu leer deuxièmement ci xalifa Sall euh, leer na troisièmement ci Sonko léegi sénégalais yëpp gis nañ ne Macky Sall euh, dafa ragal am adversaire bépp bépp opposant potentiel bu mu gis bu jàkkaarloo ak moom mu bëgg la faagaagal te lii kese moo fi nekk quoi amul leneen ko par exemple da ngay dégg ñu naan ay opposition bi dafa war a euh, woote jàmm ak pouvoir. par exemple bu ñu amee ku ñuy waxal nañu waxal pouvoir mooy ki nga xam ne mooy dóore mais ñun dañu nekk ci dëkk boo xam ne tey actuellement dafa mel ni hypocrisie moo ñuy moo ñuy moo ñuy commencé jàpp ndaxte kenn waxatul te yàlla tax da ngay gis ku toog war a atte dëgg te tax te te Sénégalais yi muy xale muy mag ñëpp xam nañ ne que depuis mag Sall ñëw Sénégal ba léegi démocratie amatu fi droit amatu fi léegi ba pare dafa mel ni dafa mel ni dañu nekk ci pays boo xam ne tey ci guerre lañ nekk foo foo taxaw euh, policiers yi ñu ngi taxaw ba pare boo xoolee tey ni ñu jàppee euh, euh, Ahmed Aïdara jàppee ko Déthié Fall ak le jour euh, mars le 17 bi passé nu ñu barricadé kër Sonko barricadé ko kër Barthélemy Diaz loolu mooy démocratie bi ñu doon woote Sénégal amul xam mën nañu wax lu nekk tout sauf démocratie. mais ndax mënuñu wax ne da ngeen a dëgër bopp ndax dañ leen tere ngeen dëgër bopp te ñoom wax nañ raison yi tax ñu tere na waaye yéen nee ngeen ala kulli li ngeen bëgg amal di ngeen ko amal. non problème mooy que gis xam nga. Euh, ba pare euh, prétexte bi nga xam ne moom la préfet joxe ne mars warul am loolu leer nañ ci sénégalais yi nekk politique kese la gis nga li am solo mooy euh, ñu bàyyi wiir wiir bi ndaxte sénégal yëpp xam nañ dëgg bi li am solo mooy ne sénégalais yi wax dëgg te yàlla tax da ngay gis ñu toog tey di di jéem a neutre wala di jéem a naan dañuy équilibre. lii di jéem a ne euh, euh, entre état la ak opposition mais du entre état ak opposition mais c'est un état ki xam ki bi nga xam ne tey moom mooy néewal doole opposant léegi opposant bi su fekkee dafa dafa résister ñu ne nitu nitu ay la quoi ba pare benn affaire la boo xamal euh, Macky Sall mu xam que gisa li muy essayé du jàll ñi ngi jéem a jàpp nit yi di leen yóbbu prison. rafet nga njort ci suite gi nar a am par rapport ak procès tey bi. waaw nañ ci njort mais ak lu ci mënti am rek. ñoom dañuy jéem a intimider intimider nit yi di jéem a ñi ñu njëkk jàpp di leen jéem a yenn daan yi nga xam ne tey dañuy ragaloo ñeneen ñi mais mais même bu ñu doon tëj Sénégalais yëpp du bi gis nga bi euh, fii la ba bu ñu xeexee tey amuñu lu bëgg suba dañuy xeexaat te dernier xeex bi mooy 2024 te Sénégal yëpp xam nañu ne 2024 Macky Sall du bokk te benn affaire laa bëgg a xam Macky Sall mënul. Sall du bokk 2024 foo ko teg. non Macky lu tax. nul ne peut ne peut faire plus de deux de de deux mandats euh, successifs mënul nekk par exemple euh, loi bi daf ko leeral xam nga soo déggee yenn gars yi naan ay des fois ñu naan la euh, dafa def cinq ans léegi bu ñuy compter cinq ans la ñu compté mais du loolu. sept ans yi du bokk cinq ans yi cinq tàmbal tamit ci premier cinq ans bi kon des na ko beneen cinq mais problème bi du loolu quoi xam nga euh, par exemple loi bi dafa leeral lépp quoi la wax ne même bu doon mandat dix ans la wala deux ans def lu ko ëpp loolu na ba pare laa bëgg laa bëgg a wax sénégalais ñu comprendre gis nga bi ñuy mënee ah, bu ku nekk toog foog ne ñun. par exemple suñu euh, par exemple dañuy xeexal Ousmane Sonko wala dañuy xeexal qui que ce soit par exemple képp koo gis mu génn di xeex euh, Sénégal moo tax muy xeex ba pare nañ bàyyi diabolisation bi nga xam ne tey léegi dem nañ ba nga xam ne amatuñ benn benn benn prétexte bu jàppee Ousmane Sonko léegi benn affaire moo leen dese mooy état bi mooy diabolisation di jéem gëmloo kilifa diine yi di gëmloo sénégalais yi ne kii nitu ay la di gëmloo ne kii dafa bëgg a taal réew mi te problème bi mooy que xam nañu lan mooy taal réew mooy injustice mooy taal réew dëkk boo xam ne tey am na injustice loolu mooy taal réew mais gars dañuy bàyyi injustice bi mag Sall di def teg ko nële kii résister ñu taxaw ne moom mooy bëgg a taal réew mi loolu mooy hypocrisie te bépp Sénégalais bu nekk Sénégal xam nga ne lii xew depuis 2012 ba léegi leer na ci sa bopp Macky Sall mënul am adversaire léegi nag bu fekkee tey li mu réussir woon ci Karim Wade réussir ko ci euh, Khalifa Sall léegi ñëw ba ko réussir ci ci ci Sonko Sénégalais yi taxaw ne du am bu Sonko taxawee résister. léegi ñu ne nitu fitna la te loolu nitu fitna boobu ñuy wax diabolisation la te loolu du jàll instant bi sénégalais yeewu nañ te aussi Macky Sall mënul def benn pexe bu génnoon armée bi yëpp mënul fexe ba sénégalais arrière premièrement lii dinañ ko xeex te combat bi fii ba la même bu doon jàpp des des de milliers de personnes combat bi mënu ko réussir ba mu noppal boppam.